yow xalaat nga un jour Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko bokk jëmuwaay wala jàpp nga ne ñoom fii moom séparé wu moo gën ci ñoom. Bougane Gueye. parce que ñenn ñi dañuy jàpp ne Bougane dafa mu Sonko mënuñu def. dañoo nuroo waaw xeet boobu la. Bougane ak Sonko dañoo nuroo style. Mhm. tolloo ay at. Mhm. bokk daanaka même discours. bokk mhm. maasu nit ñu ñuy jéem a capté. te Sonko gën ko jekk voilà. ah non Sonko da koo njëkk a jóg nag sax. Mm-hmm. Bougane Gueye ba Sonkoy taxaw ne damaa bëgg. Mm-hmm. moom da doon def tournée rek xamoo woon daayira la bëgg xamoo mbootaay la doon taxawal xamoo da doon def tournée am. Mm-hmm. gëm sa bopp bam ba ba tournée fépp. doo ko taxaw daal ne candidat laa Bougane bul fàtte 2019 bii. ci la ci la nekk ci politique bi. lu ko jiitu mos taxaw fenn mu ne bëgg naa. bi muy bi muy bi muy bi muy nekk ab employé nekk ci liggéeyam Sonko ngi woon ci liggéey bi. léegi nag il faut Sonko moo ko jiitu. te itam Sonko dem na élection gagné. lu mu dee dee dee maanaam élire nañ ko te xam nga politique dafa am lu ci am solo mooy. décret ak élire. mooy décret mooy loo xam ne président moo jëlu big big moo ko xoos. nga falu. waaye loo xam ne nit ñi ñoo waaxu ba ci carte ba ci kii ba ñu moo tax ngay dégg naan honorable maanaam dañ la honoré. maire honor dañ ko honoré président dañ ko honoré député bi dañ ko honoré parce que dañ la élire dañoo jël carte dugal ñu wàññi askan wi waxal seen bopp ne yow lañ bëgg. loolu ci politique kuy ngand moo lay ngandal kuy tuuti moo lay tuutal. Mm-hmm. Ousmane Sonko daf ko am. daf ko am waaw wax mm-hmm. dem législatif mooy ñett élection yi am yëpp. dem na législatif ñu honoré ko. mu dem présidentiel gis nga lam fa am. Mm-hmm. honoré nañ ko parce que bokk na ci sénégalais yi am na mën nañ ne parti nangam ci sénégalais yi moom lañ moom lañ def seen président. ñu jóge fa ñëw ci municipal. ñu honoré wat ko. kon kooku mënul yem ak Bougane. Bougane amul benn fal bu mu mas a falu boo xamante ne eh, sénégalais yi ñoo ko fal moom ak bëggam la am di ko wax mais sénégalais yi ba léegi wanaguñ ko ne ko li nga ñuy wax li nga ñuy won nangul nañ la ko kooku moo ko Ousmane Sonko mënu ñoo ci politique te sans su Bougane mooy mu dem ànd ak Ousmane Sonko nangu daal doon taalibe wala non xam nga nit ki taalibe kenn du ko def kenn eh, tey jii mas naa ko wax Abdourahmane Diouf mii ñu waxtaan ma ne ko Abdourahmane mhm. ku defaroon parteem ne la kaay di ma baleel baleel ci bunt bi demal bale ko soo fa nekkee di bale di bale di bale sa compétence moo lay yenu ba ca sees bu mag ba mu teg la fa parce danga am compétence mhm. gis nga bu ñu la boo ñëwoon fenn xeex ba ne may toog ci digg ba ba ba ci digg bi mhm. te amoo compétence sa sa cuune moo lay wàccee ba nga dem nekkaat ab visil ci bunt ba affaire yi ay fii laay taxawee fii laay taxawee loolu amul ci politique ñu bëri nag da ngay ne mature nañ ci politique mais day loolu da leen gàllankoor su ma toppee su ma ñëwee maay topp ci ginnaaw diw ak topp ma ci ginnaaw diw hmm. tey Abdourahmane Diouf bu doon cerveau dëgg ci wàllu politique hmm. moom parti Pastef la militant yi muy rêvé am moom hmm. waa Pastef la discours bi mu amee ñi ñi am nopp yooyu ñooy ñooy taalibee us ñooy ñooy militant yi Ousmane Sonko tey moom bu ñëwoon yàlla tere mu ñëw demoon dugg dugg Pastef toog ñu jékki-jékki tëj Ousmane Sonko. Hmm. par exemple laay wax rek. Hmm, ñu ko yàlla. mais ñaanuñu ko yàlla. Hmm. Ousmane Sonko bu fi nekkul rek Abdourahmane Diouf maanaam environnement bi moo koy imposé. am na passé beeg lépp ci setaay bi daal. moom moom militant yi mu rêvé am. Ousmane Sonko ko am. comprendre nga. bu toogoon li muy li muy doxal jàpp naa ne bu Ousmane Sonko toogoon du ñu soree. du ñu soree léegi loolu yow lan moo tax yow. Ousmane Sonko moo la moo moo la jiitu ci politique euh, soxla woo ngay maanaam Déthié Fall am na parti politique. Hmm. mais lan la parti bi di peese. tey jëmm Déthié Fall mooy mooy mooy hmm. moo moo peese mais pas parti am. pas parti am Abdourahmane Diouf loolu mën na ko dal. Hmm. mooy jëmmam mooy peese. mais du parti am. du parti am. comprends nga leen ko baax ngaa ngun wuti ab permanence ak lépp taf ba noppi mais parti buy yëngu di exister am mouvement yu dox boo moytul doo ko am tey ji télé bu woowoon Abdourahmane ne ko dama la soxla mhm. nga ne dama mënul ñëw koo ko proposé ci sa parti mu bañ ndax yow la soxla ah non kenn xamu leen di <laughs> tey Sonko mën nga ko Sonko boo gisee mën na toog at dem benn télé mhm. parce que télé bi day woo Jomaay mhm. day woo Abbas Fall day woo ki sant El Malick El Malick Ndiaye sa deex topp Ousseynou Ly Ousseynou Ly Aliou ah? nu mu tuddati Aliou Sow la defe naa Ah, maître Tall non ki sant saw Fadilou Kayta non am na keneen ku sant saw ki ku kii gi Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba boo yooyu ñooñu parti bu ñu nekk mm. mais parti bi mooy dem mais yow tey bugaan boo boo jëlee bugaan nga puus nekk kan nga xam ci ci ci ci ci gëm sa bopp koo xam ne mën nga ko jaral na la nga teg ko ci plateau muy wax ba ci ba ci ba ci nit dof mm-hmm. hmm? nit dof mm-hmm. mais yow tey Abdourahmane Diouf partem bii mm. ah, su su dul Abdourahmane Diouf kan la kan la ab télé ñemee teg naan ko kaay waa mm-hmm. ah parti Déthié Fall noonu parti Malick Gakou kazalika léegi loolu mooy problème bi mooy man nga am parti mi nga animé parti bi mooy problème nga animé xam naa leen te moom Sonko loolu daf ko réussir ba pare mm-hmm. amul discours booy jaay Sénégalais yi te fekkoo Sonko jaay leen ko ba ñu jënd ko ba pare mm-hmm. mais léegi ooy la problème. te surtout xaalis doon def mbir yi moom sans xaalis lay demee. léegi Macky Sall. Mhm. bu toppul woon ci Ablaye Wade. Mhm. dina nekk président. duñ ci am hmm? du ko nekk. Mhm. Idrissa Seck bu demul woon dugg ci PDS ba PDS am nguur. mu génn ci PDS tey li mu doon du ko doon. fi mu egsi ci politique du fa yegsi. déedéet ah Ousmane Tanor mais ànd ak Abdou Diouf moo tax ñu xam ko. Moustapha Niass ànd ak Abdou Diouf moo tax ñu xam jiba ko ànd ak Abdou Diouf Khalifa ànd ak Abdou Diouf léegi la moo tax ñoom Déthié Fall ak ñoom Abdourahmane Diouf jàpp ne politique mooy da ngay fekk kii bi rek nga fexe ba wut sa benn pot rek teg yow ne sama pot laa yor man mm-hmm. dina metti mais loolu du dem mm-hmm. dina loolu du dem mm-hmm. il faut ñoom ñu boole seen doole yi hmm? kon yaakaar nga ñoom ñu am benn candidat dina yomb muñ ma dégloo man seen intérêt mooy ñu am benn candidat. muy Ousmane Sonko. kii bi municipal euh, kii législatif yi. mais bu fekkee Khalifa Sall mën naa dem. Mhm. mais Khalifa Sall mën naa nekk tête de liste. Mhm. au niveau international. Ousmane Sonko dem département kii dem département bi kii dem département bi te Abdourahmane Diouf baax na pour département bi. Mhm. candidat bu dëgër la boo xam ne boo ko fi tegee mu gañal la. parce que lu mu dee dee dee nit ñi weddi wuñ ko. am na valeur yu ñu gis ci moom am na lu koy toppee. mais moom tamit na xam fi muy taxaw. Hmm? Euh, Sacré Cœur Mermoz hmm. Bougane boo ko soxlawul moom ci jëmm soxla nga jëmmam soxla nga alalam soxla nga matérielam hmm. Hmm? Euh. am na poos am na jumtukaayu télé am na am na am na am na am na quelqu'un lu mu tekki mooy boo ko bu la rombee nga ne Bougane mi ngi nii nga tey kooku bu ko yeewee amoon da koy téye Thierno Alassane Sall am na am na discours am na lu mu saf parce que da xam ne gëm na dara au moins ba pare am na parcours bu mu jaar kooku tey nga jël ko jaay koo Cees waaye mu dem seere département bi baax na ci ñoom. bu amoon tey tey tey man gëm naa ne maire boobu fa nekk Diop docteur Diop. mais day topp ci ginnaaw Thierno Alassane. Hmm? ñoom ñoom Birame su lay ñëw lancé wu ci ginnaaw suñu amee foofu loolu day dem. day dem mais ñoom képp ku ci génn yeew yi di jéem kot kotal sa benn affaire doo nekk dara. doo nekk dara. loolu war nañ ko jàng ñoom. Hmm. Hmm. kon daal oo daal mooy benn mooy mooy doole bi. non opposition bi moom benn affaire laa lay wax Khalifa Sall. Mm-hmm. bu ñëwee nekk tête de liste. Mm-hmm. day metti ci Macky Sall. Mm-hmm. parce que Khalifa il est dafa crédible. politiquement ñeme nañ ko maanaam ñi ñi ñi soowul ci politique mooy ñi nga xam ne soowuñu ci politique ñeme nañ ko. ñi soow ci politique ñeme nañ ko. mais dama gëm ne duñ ko bàyyi mu dem. waaye fi problème bi nekk man damaa gëm ne yeew yi li bëgg mooy def Sonko tête de liste. mais dañuy dañuy damyee ak Macky Sall dañuy jël pion bu baaxul bi sexal ko. <laughs> mu jëfi pexem ba pare. waaw non mu ne non mu mu dàq pion bi rek ñu indi pion bu baax.